parce que dafa am benn kuréelu seytaane yoo xam ne ñoom ñooy def diabète sur terre sur terre ñoom ñoo wàllu diabète mhm. man passé naa ci ak benn docteur benn expérience boo xam ne keroog la gëm beneen xam am na budul médecine moderne ci naka ko ko prouvé noo ko prouvé dama am benn malade boo xam ne seyaatin yi dañ na ma ñun ñoo def diabète bi ci moom ma ne leen comment ñu ne léegi danañ ko wan pendant quelques jours du lekk ñu wan la bu toog une semaine lekkul ñu bloqué lekk bi bloqué naan bi hmm? loolu su ma ko waxee dañ may wax damaa wéradi damaa dof mais docteur bi moom mu ngi fi di dund maa ngi ma téléphone hmm. yaa ngi dégg hmm. ñu ne ma léegi comme yaram bi léegi gëj na lekk dañ na naan léegi da ut kenn benn docteur bu ko mën a jox bu ko defal perfusion mu mën a am vitamine ci yaram bi ma woo docteur bi mu ñëw ma da ko kii dañu dama soxla nga defal ko perfusion pour mu am vitamine. Mhm. mu préparé ba war a def lu defal ko perfusion bi. ma ne ko mais elle est diabétique mu ne ma non kon xaaral ma vérifier diabète bi suukar bi fan la toll. mu vérifier ko mu nekk 3 grammes 37 3 grammes 37 xam nga 38. Mhm. yaa ngi dégg mu ne ma kii suukar si dafa yéeg kon xaaral ma defar ko lu salé pour mën a wàccee suukar bi di si mhm. demee comme ça suukar bi mën a wàcc. ñu ne ma suukar bi yéegul. ñun ñoo ko jox résultat boobu hmm? ma ne ko léegi defal ko kii bi rek sans nga defal ko lu sale bàyyi noonu am problème mu ne ma non monsieur Diop bàyyi ma def sama expérience parce que man li ma jàng laa mën a def waaw ma ne ko am problème léegi mu monté ko ba mu baax balaa mu koy defal kii bi ñu ne ma wax mu vérifié waat ko <laughs> ma ne ko léegi balaa nga koy monté euh, kii bi euh, euh, bouteille bi hmm. léegi vérifié waatal mu vérifié mu nekk deux grammes trente deux grand trente-sept xam deux grand vingt-sept entre kii mu may ah. commencé rëcc léegi yaa ngi dégg mu ne ma mais c'est bizarre ah ay kër dem na mu ne ñoom nee nañ ma mhm. yow yow li ngay def ni ñoom ne la de résultat yi mu ne ma waa mais de toutes les façons il faut ma defal ko di ci demee sukab dina wàcc mhm. ñu ne ma bu subaa bu ñëwee mhm. dina gis résultat boo xam ne ba mu juddoo ba ne mosu ko gis mu ne ko baax na mu dem te lendemain mu ñëw pour xool si bi mu ñëwee fekk mu nekk si grand trente Hmm? imaginez quelque am um, 6 eh, grammes. 6 grammes da ngay dee. waaw waaw. ma oo benn diabétologue ma laaj ko mu a ma ma ne gis benn malade boo xam ne dafa am diabète mais diabète dafa yëg ba 6 grammes te am te mu ne ma anamu dee na. et automatiquement mu ne ko noonu deewul de mu ne ma mu ngi daal comment mu ne ko noonu mu ne ma noonu c'est incroyable loolu mënut a nekk. docteur bi da doon na di lox xulli mu bët yi commencé ñax ma ne ko mais. c'est bizarre ah mais li ko defal xanaa moom moo yëgal si ko mu ne ma non non non li ma ko defal yëpp normal man xam ne ma xam naa li ma xam nag. Uh-huh. ba mu ba mu ba mu sonn ma ne ne lii du dara démb bi ñu fi jigi uh-huh. dafa am lu ñu doon wax ma ak ne ma ne ko eh, résultat boobu lañ lay wan ne yow sa résultat des fois bu fiable des fois nga am résultat boo xam ne bu uh-huh. fiable. y des y des y a autre lu nekk ci biir affaire bi loo loo maîtriser <laughs> ma ne ko léegi qu'est-ce qu'on va ma léegi dafa dafay dem mu dem defi analyse. Mhm. ñu ne ma bu mu defi analyse kooka boobu ba tey deful analyse. Mhm. keroog la sukkaram gëj a yéeg. ba nii. 6 grammes 37 moo togg añ te moo añ ca añ ba. la ilaha illallah. keroog la fa docteur bi gëj toog na lu mal 7 mois. Mhm. ma woo ko téléphone ma ne ko waaw docteur diw mu ne ma waaw monsieur Diop ça va mu ne ko yow sa malade bi nga fi tànni. wàcc ko fi mu ne ma yee loolu te demel la zéro ko <laughs> yee sëñ Diop demel la loolu zéro ko macha allah